ngeen jot suñu a jot moo parce que ni ñuy passé ramadan bi vraiment man du may neex daal du may neex ñun Sénégal léeg-léeg ni ñuy passé ramadan bi ci suñuy média vraiment du may neex yàlla xam na ko parce que nag nekkuloon nii warutoon a doon nii doon nii ramadan li am ci bagage alxuraan li am ci bagage aka aka aka ñu koo mën a sotti ak ñu koo mën a sotti ñu bàyyi ko fa ndeysaan di saaga wante di tuumalante ku ne di wax sa morom man de jégal naa ñëpp jégal naa ñëpp yàlla bu yàlla mbugal kenn ngir lan loo wax Tayib Socé wallahi tallahi yàlla bu yàlla sanctionné kenn yowmal qiyaam ngir loo wax Tayib soose wallahi tallahi maa ngi jégal ñëpp incha allah di ñaan yàlla fay ñu ñun ñëpp incha allah noonu la eh, samay mbokk nag ak samay jarbaat ak samay doom ak ngi leen di xamal mission bi yombul ba ba koy tànn xam naa ne ay jafe-jafe rek la yonent bi nee na xalu safara la yonent bee ko wax xalu safara la xalu safara nag sëñ bi dafa tàng ah loolu man xam naa ko di xam naa ko di su ko defee yëpp amul solo xalu safara tàng na waaye man bu ñëwee dama ciy sotti ndox mu giif xam nga man <laughs> ndox laa yore dama koy fay yàlla xam na ko xalu safara tàng na mais dama yore sama potu ndox buy ñëw ma sotti ko ci mu fay yàlla xam na ko mais sóoraale nañ ko nag bu yàgg nag ngeen xam ne nag yëf yi yombul yombul de yonent yàlla Muhammad li mu daj ndeysaan ah waxuma la li mu daj ci jëmmam li mu daj ci njabootam daj ko ci ay saxaabaam liñ ko wax moom Seydina Muhammad ci ay woy juróom ci lépp ah mais sëñ bi ku teg sa tànk fa yonent bi tegoon tànkam mais li yonent bi dégg di nga ko dégg kenn mënu ci dara maa ngi sant yàlla nag parce que feeg dégguma ko rek damay jàpp ne teguma sama tànk fi yonent bi teg tànkam mais feeg maa ngi koy dégg maa ngi sant yàlla parce que wallahi maa ngi koy dégg maa ngi sant yàlla maa ngi naan kon baax na ah kon baax na nii la kon baax na waaw su ko defee ngeen xam ne kon ñu man maa ngi sant yàlla bu ma kenn xeexal bu ma kenn xoloowal maa ngi sant yàlla bu ma kenn xeexal bu ma kenn xoloowal di gërëm ñëpp di sant ok kon ma yaakaar ne itam nag damay wax toujours ne ñàkk jàng mën a jàng ñàkk a mën a jàng alquran mais erreur la ñàkk a mën a jàng alquran erreur la ndeysaan soxna si ma woo am na soxna su ma woo ndeysaan mu ne ma li ngay wax yëpp su koor gi jeexee nee ma ci lay ci lay fas yéene rey sama bopp ndeysaan ah li ngay wax yëpp bu koor gi jeexe ci laa fas yéene rey sama bopp dinaa ko mën dinaa ko mën ah waaw ko mën ñàkk mën a jàng alxuraan mais erreur la eh, maa ngi eh, gërëm Téliko Téliko Souleymane Téliko am na mbokk moom moo woo démb ne ma moom doomu daara la wala fan la bokk doomu daara la ma ne ko lan moy doomu daara lan mooy doomu daara xam ngeen eh, mbokk yi dañuy waxtaan aaye bi njëkk a waa wàcc ci alxuraan iqra ndigal la ndigal yéen ñu jàng lay wax ane ana kilifa yi ndigal la ndigal iqra bismi rabbika ndigal la lu bàyyi ko ci sunu borom jàngal waaw jàngal boobu nag sëñ bi képp ku wuyu ji jàng rek mais sëñ bi yàlla jox la ci xam-xam al xam-xam dëkkul kër kenn loolu rek laa leen di wax dëkkul kër kenn bu leen ko nangoo dëkkule ci kër kenn bu leen ko nangu dëkkul kër kenn ku ko jàng yàlla baaxee le ci loolu rek la iqra bismi rabbika la si xalaqa iqra mooy ñaari ndigal waaw nga naan doomu daara la doomu nangam teli ko doomu daara la parce que intellectuel la li mu doon wax ci alxuraan mu ngi noonu ah kon alxuraan ci doomu daara ak doomu daara boo dëkkee ci doomu daara te jàngoo mais eh, xam-xam dëkkul fenn waaye sëñ bi loolu laa bëgg a wax dëkkul fenn dëkkul fenn kër ka ko jàngale dëkk yàgg naa koy wax. voilà kon su ko defee ñu bàyyi loolu way Sénégal ñu tardel way loolu ñu tardel loolu ñu tardel dañu jàngi te bàyyi moo ñu tardel ah bu leen ko nangoo dëkkali ci kër kenn dem leen ngeen jàngi ko lu baax kenn du ko dëkkale fenn da ngay reyante pour bokk ca mais loolu la malheureusement ah kon su ko defee mu ngi noonu mbokk mi loolu laa ko tontu ah moom ah moom xanaa doomu daara la man ne ko lan mooy doomu daara lan mooy doomu daara am na ñu nekk ci këru daara yi dañoo xam lim xam dañ koo jàng kon xam-xam iqara la yàlla wax iqara ndigal la ndigal ndigal li nag ku ko jëfee rek mais sëñ bi bokk nga bokk nga bokk nga su ko defee loolu mooy li ci nekk ñu ciy bàyyi xel vraiment loolu la moo tax ma ni ñàkk man a jàng alquran erreur la dama koy wax dëgg yàlla xam nga yonent bi ne man xara a suratu duxaan mais il faut nga mën a jàng alxuraan ku ko jàng xiwal yi yow mi ko mën a jàng di ko jàng bi bisu àjjuma mais yaa koy am moo tax dama yéene ñëpp ku ne rek wax dëgg yàlla war ngay mën a fexe fer iji a ah, di ko nafa pour xéewal yi wax dëgg yàlla xéewal yi mais nga bokk ci wax dëgg yàlla loolu rek loolu la sama wax yëpp loolu la yéene la rek nga bokk ci xéewal yi rek moo tax may wax loolu su ko defee da ngay jàng yonent bi dafa universel la leen toog di ko tiituroo naan mooy sama maam mooy sama maam yónneent bi nee na maamawuma kenn ci deret yónneent bi ko wax de maamawuma kenn ci deret doon na wax ne ana jaddu kullu taqiyin wa in kaana xabasiyan wa aduwa kullu shaqiyin wa in kaana quraysiyan dem leen ngeen vérifié jógo dem leen ngeen jàngi ngeen na bu kenn toog di ma tiituroo naan man yónneent may sa maam képp ragal yàlla may sa maam donte africain nga donte africain nga képp koy bandi duma sa maam donte ci Quraysh nga bokk loolu yonent bi wax jàngeen ko toog naan yonent bi mooy yaay sama maam te foo waxee ñëpp ruus foo jëfee ñëpp ruus jote jotee woog yonent bi dara way yonent bi mooy sama maam du wax sa comportement la ni ngay mel ah waaye déedéet waay su ko defee loolu mooy li ci nekk ana jaddu kullu taqiyin wa in kaana xabashiyan sallallahu alayhi wa sallam wa aduwa kullu shaqiyin wa in kaana quraychiyan sallallahu alayhi wa sallam ku baax maay sa maam ku bon bokk ak yow dara sëñ ñu lii leer na yónneent bi naxul kenn de kenn de ku baax may sa maam ku bon xaw ma la. su defee loolu yónneent yi moom ci yooyu la présenté moom moom nekkul ci moom ci lii la ne moom ku baax may sa maam donte africain nga donte da nga ñuul kuk may sa maam ngir lan mbaax ga ku bon donte ci Quraysin nga bokk xaw ma la joteewuma ak yow dara yónneent bi ñun lii la ñu jàngal. lii la ñu yónnent bi jàngal ci lii la ñu yónnent bi yar sallallahu ci la ci yar de ci la ñu yar de hmm? ci la ñu yar de su ko defee amran min indina inna kunna mursilin rahmatan min rabbik innahu huwa samiul alim ci la ñu yar ci la ñu yar de ci la ñu yar de yàlla xam na ko ci lañ màgg de ci lañ màgg de hmm? ci lañ juddu de ci lañ juddu de parce que wallahi tallaay ci lañ juddu de ci lañ juddu de hmm? ci lañ juddu de et puis du Amérique senegal réew mu ndaw la mu ngi nii Sénégal réew mu ndaw la man ngay xëy dem fu ne man ngay xëy vérifier fu ne réew mu ndaw la Sénégal hmm? et puis Saloum yaatuwul Saloum yaatuwul hmm? su ko defee loolu mooy li ci nekk hmm? euh, su ko defee mu ne rabbi samawati wal ardi wa ma baynahuma in kuntum muqinin waaw kay in kuntum muqinin in kuntum muqinin ndax yàlla moomu nga xam ne mooy kii dégg te moo xam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 danaa la dóor dóor yu métti yàlla xam na ko te kooku bu ma kenn waa naan man non bul tontu bul tontu no su ma màggee ba toll ni nit di nit di offensé samay way jur may tëddi nelaw xanaa man tekki wu ma dara man man ma xam fi ma bàyyee ko xam fi ma xam fi ma jóge ku koy wax ci télé ngay taxaw ku jàkkaarloog man boo waxee samay way jur dinaa la dóor ba tëral la ci suuf te am na ñoo xam ne mënu ma leen di tontu ndax ay mbokkam man mari na Baye Niass laa doon jàngee <laughs> Nasi Nasiru moo doon sunu moo doon moo sunu mudir bàyyiloo